مدادي وأقلامي لمن أذان يا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته benn si Zeyna bi ma ñëwaat ci seen émission kaddu askan bi muy émission bi nga xamante ni si lañ fas yéene jëndi loo xamante ni si xolu askan bi la nekk tey ñoo fi ñu fi jënd ànd seeg benn mouvement boo xamante ne dañuy waaj seen programme le huit mai nii ñëw incha allah léegi maa ngi fas yéene jox micro ki nga xamante ne mooy seen responsable muy Ousseynou Ndiaye. ngeen jël jàpp ndax maa ngi am jàpp yàlla am na ñu bëri ñoo xam ne taxaw nañ ñu ne maa ngi ñàkk ci waaw ku mel ni Khalifa Ababacar Sall bu Betaaw waaw bëri na ñoo xam ne ñu ci jàpp ñu ci jàpp sax ñi ci jàpp laa wax même xeer ko xaarib xaarib jaay bu jaxase sax waaw ñun ñëpp ñu ci bëgg a fexe ñoo xam ne ñu leen ci téye téye bu ñu xam ne waaw maire bi nag dafa dem waaye maire bi taxaw jëlee si kii nga xam ne mooy loo xam ne dina rafetlu ci commune bi wala dina nekk loo xam ne xaar ñu commune waaye nag dem maire bi ñu mën a faj nekk seen table yooyu daal ñu ma xool loolu bari na ko yoo xam ne daal vraiment ñu tamit maa ngi ay bagages ñu ne ñaar kooku ñu leen sax dañuy jafe ni yaa ngi xeexal yaa ngi tax ay ba yeneen sax ñu la jox ay bagages yoo xam waaye xeex bi ñoo xeex ñoo xeex a xeex incha allah ba mu war a yegg dinañ ko yegg te du ñu bàyyi te du ñu ko xeex waaw ndax xeexal sa bopp moom dafa naan jaamu yàlla sa carrière sa sa bopp weesu jàmm yàlla doy yi ngeen gisal sama gannaaw maanaam mbooloo la man waxtaanee ci nit ñi rek waaye ay booy jaaxal rek ay ñoo xam guddi yi boo ñëw si la ko boole boo ay àll am na ay jigéen yoo xam ne dañ nekk am na am na am na am na maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi def renoncement am na ñoo xam ne ñu ngi nekk si même saaf affaire bi dina yaatu yaatu boo xam ne waaw ah.